xaadir murid moom lu ko soob la def ca murid huwa allati yafalu ma yuridu duna allati yuridu al-murid wa huwa ayun samadun wa baaq subhaanun suuka nafin wa waaq nan sant tey feddli suñ tawhid bahda salaatina ala al-wahiid te seetlu yonel yi ñëwoon ci dunya waxe kàddu lan wan ku nekk wéy na te seetlu xayru xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu naa wa ma muhammadun illa rasulun xalxalal li mu doon ne daanaka ab soñu lay doon day jóge ci moom waaw li fi jóg nag moo xam ne lépp tamit ah, dara lépp génn ci waa sëñ Fall Fall nañ ci doon def nag ñi ma ko àndal muy waa waa kër gi ak xaar yéen ci Modou Kébé mii nga xam ne ñoo ànd ku ci nekk la nga am yaa ngi ci jéem a tàbbal li ma leen wax nag mooy ah, li jublu gi mooy daal koo xam ne daanaka li nga ko waxee léegi nekk ak maam Thierno da ko eh, saamal ay mbaamam suñu borom donc mu jógee fi nga nekk suñu mën aw bàlla mm. moom mu gërëm nga dem mm. day dama yaakaar ne lépp lu ñu wax ci jumaa ji nga xam ne loo fi def sa day day day des mm. dama sa ñoom Thierno Fall fa mu tëdd waa këram ku ci ñëw dañu xam ne waa këram ñoo def lii ku ci dugg rek xam ne lii ci waa këram la jóg waaw loolu daal mooy yéene ji te lépp nag ànd ci buntu sëñ Fall Asta Dieye ndax maa ngi leen doon fàttali wax bi may doon ci moom loolu moom moo ñu dëkkal waaw waaw loolu daal ñu ngi ciy rafetlu alhamdulilah mooy moo moo moo def lii ak lim rëy rëy li ko yàlla fay fii mu fekk lu ëpp àllaaxira fopp te boole nu ci biir boole ci sëriñam bi nga xam ne moom it sama xarit la woon naka jekk benn la nu woon ba lii dikk gudd bi lii dikkee da ko yokk rek bi lii dikkee nag maa moom lépp waaye bi mu dikk gudd it noonu la meloon ci man wala li ma siyaare ngi jégalu ci kàddu yi ah, leeral tuuti rek ah, lu toll juróom benn weer ci ginnaaw mu daa ñëwoon ci saytu xool xool liggéey bi bi ñooñu war visité liggéey bépp mu daal jël engagement daal ne ma lampe yi jumaa ji jël naa ko engagement dinaa ko jaayante dinaa ko def daal di woo mu amee amee Ndiaye ko nattal ma mesure yi xubbe xam ne mu toll ndax xubb bu nekk daa lamp bu yelloog moom waaw bañ ko noté daal ko yónnee ci WhatsApp naka la xool daal ne d'accord danaa ko def waaw léegi nag jën dem bi muy jógee bi bi ko yónnee kii bi boobu mag Canada waaw dafa jóg Canada dem ci pays yàlla jënd ko indi cëpp indi na ko man jàpp ñu sax dana gaawee nii foog foog ñu ko woon ndax barab bu ñu ko def sax tax taxutuñu waajal ko ndax dañu jàpp ne du gaawee du gaawee ñëw léegi ne oto oto baa ngi bu dëgër bi yor yor yor làmp yi ko yóbbu denc ko ci magasin bi ba bañ war ko monté ñu monté ko daal li mu waxoon def na ko te yaakaar naa ko te joxe joxe woon na ci jumaa ji joxub sëriñam loolu jënd lamp yi joxe waaye may wax ne liggéey yàlla moom mi ngi mel ne ku añ ak reer boo doon mu ko añoon naa diw du ma añ tey doon reeroon naa du ma du ma reer tey waaw ngay jox ba muy àgg rek waaw parce que ak yow boobu ba muy àgg wax naa ko léegi fii ci ba suñu mu doon ngi foon ci ci RTS neen ah. kii moom daa bëgg dimbali nit ñi ndax juma ginnaaw yàlla ne ku tabaxal néeg ma tabaxal ajjana ku tabaxal jàkkam tabax tabax na ñaari ñaari jàkka tabax na fii ci këram tabax tawfiix loolu doy na ko doy na ko tiyaaba waaye bëgg a dimbali ñi mu tax mu sumb sumb mel nii waaw euh, sëñ Mourou Abel tabax na jumaa ji mu toll nii bàyyi Cheikh ñëw yokk ba mu yaatu toll ni jumaa yëpp toll moom na dafa ñu bokk ko taaral ba bokk jumaa yi gën a rafet gën a rafet ci ci ci ci ci Sénégal waaw wax naa ko léegi ne daal bi jëm ci suñu borom kuréel bi jëm ci suñu borom mi ngi mu teg ci penc mi ku bëgg yu am leen luy bët si morom jox ko mu dugalal la ci si morom na ci jot kon daal ñu ci soñ suñu wax naa ko léegi fekk na ñu ngi ci soñ ñëpp nag ki ci ki ci jiitu ci soññee bi mooy borom réew mi na ci def na ci def loxo wax naa ko léegi ci RTS sànq kon daal Modou Fall ñu ko ñaanal jëf ji si morom nangu ko te te ful ko te mu yàgg ci kanam liggéey njaboot gi retraité nañ ci mbirum waaye mbir mi àlla du ci retraité yoon mbir du ci retraité yoon amul mu noonu liggéey retraité waaye nag mu ngi door jël engagement nag ba laxa fedd laxasaayam bokk bokk soldat sëñ bi da ko ñaanal yàlla aar ko te aar ko njabootam waaw te sutural ko ñu ngi lay ñaanal li li li nga sumb mu àgg ak jàmm ba nga def leneen loolu mu ittee ñëpp wax naa ko nag ittee yëpp yëpp mooy jumaa ku bëgg ku bëgg a dimbale naa dimbale jumaa ji amoo leen benn soxla loolu rek mooy ñu kaddu yi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp mu sant leen baax a baax sëñ bi sañ ko baax a baax ndax mooy buntam ci kër kër kër borom daaw la jaar pour li mën a am ndax boo ko neexoon bu doon keneen mën na ko yóbbu fi naan wala yóbbu suma jàkk ma tax a jàkk boo neexoon indil ma ko fii kon mu def ko waaye moo ko ne soññ ko ci ne ko nañ ko indi saabu laa ko ko bisimilah kon ñu ngi ba nga ba nga ba li nga li nga yéene waaw daara ji nga xam moom moom teg ci ginnaaw kii bu bàggee jumaa ji muy lycée bi nga àggale ko ku fi jàng am bac dem àgg ci université ba sëñ la ñu ngi la koy ñaanal baax

ma jooy si sa ndaama la sañcam daaru jaal sa sin cay maa ka waaru waroote naa waaru garaaw ba wan daawu jommete naa mi ndiroy ne reen ay na la xaali xalilullaahi way jooy la ma saana jaay lillaahi ay na laa fardi xalilillaahi maam Cerno Ibrahima baabullaahi ay na alaa xutbul waraasil jaa'i xalifatil xadimi doonallaahi ay na alaa xarmi rijaalillaahi seyxi siyuuxi qaa'idil ilaahi way ma way man mi ko ñaanal wirdu ko sëriñ fu muy jëlee di mamamayen fa daarul muqtadir alhamdulilah rabbil alamin sant rek lañu def sant suñu borom amoon yéene dox ci liggéey jumaay Daaru Musti waxataan ko ak euh, ki fi nekkal maam Thierno moom sëñ Bass Anta loolu ñu li nga xam ne mooy biir wóoru jumaa yi am nañ ay ay lamp yoo xam ne daanaka euh, bu ci nekk war na fa ma a nekk dañuy war a dem topp a nag mooy li nga xam ne moom mooy nekk ci yokk bi ay nekk xam ne mooy nekk ci biti loolu moom euh, xaaruñu ko sox ndax ñi nga xam ne dégg nañ ko ba ñi ma ci àndal ku ci nekk ba nga ko déggee da nga woo sa njaboot ñoo ñëw ànd kook ñun fexe ut loo xam ne buñ ci tolloo buñ ko defee ku ñëw di nga xam ne liggéey bi lañ ci def yelloo naag li nga xam ne moo kii bi tëdd muy maam Thierno Birahim ndax ñi ko xam ñëpp dañ ko xam ci euh, sellal dañ ko xam ci fonk diine te fonk dina yaakaar nañ mi ngi tàmbale ci defar suñu kër suñu borom ba xam ne ku fi ñëw di nga xam ne ñii bàyyi nañ seen kër bopp defar kër suñu borom nga xam ne mooy jumaa ji sëñ euh, Saliou Mbacké rek yàlla na borom euh, yokk ay ñaari biir yi nga xam ne moom la doon soññe saa su ne si biiru bopp bi nga xam ne ba nga ko waxee ba fa def ne bu mu la ndax ki nga xam ne moo la sàkk li ciy def moom moo la koy fàggul sa biir bàmmeel bi nag loo ci def loo ko ci fekk dama xam ne te def ci biir bàmmeel li ci gën a wóor mooy li nga xam ne suñu borom moo ko moom nga dugal ko ci waaw non boo ci soññu daal mooy lu ci waay am na am na ku ma déggee mu naan booy tukki te doo yóbbu bagage boo amee xel da ngay fret li ñuy def na dama jàpp na fret la oh, ku ci mën a yëngu daal day doon loo xam ne day am jeextu àdduna te njeextal yu ëpp àllaaxira la waaw loolu daal moom mooy soññe bi incha allah